dama leen di andi ay leeral ci euh, abbé Latyr Ndiaye euh, post bi nga xamante ne daf koo def mu ne lettre bu muy jagleel ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko nit bi lay waxal Ousmane Sonko jullit bi Ousmane Sonko premier ministre bi ak Ousmane Sonko politicien bi donc président wu parti bi nga xam ne moo di Pastef bugguma ngeen ñeneen ku nekk jóg di taf di wax di taf di wax te fekk ne yéen ñi nga xamante ne ne. Euh,

dootuñu ko mun a nangu ci réew mu mel ni senegal gis nga boo demee ci tubaab yi loo wax ñu ne la ñun notre modèle notre style de vie ndax ñoom dañoo am seen modèle assumé ko seen modèle lañ jàpp ni moom la ñuy saytu doonte ñun ànduñoo ak seen modèle ñoom waaye seen dëkk la ñoo ko moom ñu jàpp ni seen modèle lañuy saytu ba tey xale bu jigéen bu jël fulaar teg ci boppam ne day dem jàng yi ci école France ñu ne ko doo dugg ci école bi suñ ko defee seen réew naqarlu nañ ko waaye am nañu sañ-sañ bi ci ñoo xam ne dañoo woote démocratie ak liberté ak tolérance loolu du tolérance ci noonu rek lañu ñu mën a tollu nangu fii Sénégal ak école bu mu munti doon jàpp ni nit du dugg ci école bi du fi jàngee parce que am na fulaar bu mu teg ci bopp loolu du yoon suñu responsabilité la xale yépp la ñu yemale ki teg fulaar ak ki tegul fulaar gën a leen parce que kii teg na fulaar wala tegu ko c'est un choix waaye ñoom ñépp dañu war a jox les mêmes chances tey boo xoolee récipiendaire concours général yi defe naa ñu teg fulaar ñoo ci ëpp foofu kon système tolérance bi nous am ci réew mi kenn ku ne mën def ses choix et ses options tolérer ñeneen ñi seen choix ak seen options te ñu mën a ànd ci jàmm loolu moo fi wéy bu soobee yàlla. monsieur le premier ministre Ousmane Sonko lii la wax donc moom tuddul benn diine euh, waxul euh, si loolu moom li mu wax surtout mooy système euh, jàngalewu France moom loolu la wax. parce que ñun Sénégal ci biir fii ci réew mi dañoo am ay écoles yoo xam ne ay école française lañu lu ci mel ni Jean Mermoz lu ci mel ni euh, Jeanne lu ci mel ni Sainte Marie de Anne ak yeneen ak yeneeni école donc ñu la doon waxal bon moom mi nga xam ne moo di Abbé Latir dama jàpp ne moom la parce que jël naa journée bi yëpp pour xaar pour ma dire comme que mbiru réseau sociaux la ah mun na am faux compte la Euh, xëy na dina génn ci journée bi pour wax ne du page am du moo ko bind mais ce n'est pas le cas donc ba léegi dañuy jàpp ne kon page am la kon lettre bi moom la jusqu'à preuve du contraire allez kon lettre bi mu ngi wax ne ne ne euh, lettre ouverte ak conseil bu may jox benn jeune politicien bu ñuy door a fal ci au poste de responsabilité ci poste de responsabilité bu kawe yow jeune politicien bu ñuy door a fal bi euh, latin bi dafay wax ne qui aime bien châtie bien maanaam boo bëggee daal da ngay jubbanti di yar di dóor waaye taxul nga bañ politesse maanaam yar euh, dañu koy soxla te loolu mooy langage yu buur yi ak prince yi te mooy caabi or bi nga xam ne mooy ubbi bunt yi danga war a am yar di bind euh, ak di wax euh, ak yar mu ne ko euh, déclaration de guerre sax buñ koy def dañ ko war a def ak yar école privée catholique yi dañuy yar ci respect ci mbëggeel ci jàmm ci boppu xel bu ubbeeku ouverture d'esprit mu ne ko alors ñun lan moo tax ñuy ragal voile yow jeune politicien bu ndaw bi dama jël sama bic pour bind en tant que citoyen sénégalais ndax yéen yéen a ne jub jubal jubbanti ci yarin bi nga xamante ne man moom laa am ak gëm-gëm bi ma am ci Jésus Christ mi dee dekki euh, donc man damay joxe li nga xamante ne ne mooy sama xalaat ak samay conseil bu dee nangu nga koo jël yow yaa ne dootuñu nangooti ñuy tere euh, muuru ci euh, école yi loolu nga wax na ci grand théâtre bi mu nekkoon xew-xew boo xamante ne ne dañu fa waroon màggal xam-xam yow nga tànn ne yow dangay dajal li nga dajal sa biir bi loolu ngay génnee mu ne ko nag ci ni nga waxee jarul ñuy nekk saltige sax pour xam ne ne euh, kon ubbite école bii di ñëw nii dina nekk lu lëndëma lëndëm si école yi mu ne ko ndax li yow li nga wax ay menace la wala déclaration de guerre ndax man mënuma cee tontu yaa ci war a tontu euh, li ma mën a wax daal mooy ne Euh, ndax lii mooy euh, tënk li nga xam te ne moo di euh, projet bi wala déclaration de politique générale bi nga xam te ne moom la nit ñi di xaar ci yow dangaa war a am yar te institution ngay waxal ndax école yi ay institution lañu da nga war a tamit garder di gérer say émotion ndax kenn du provoquer li nga xamante ne moo di institution mu ne ko danga waroon am courage u assumer li ngay wax nga wax je man nga bañ a wax on di ñun gi di waxal ñeneen ñoo xam ne ñoo waxuñu yow yaa bëggoon wax lu tax ngay nëbbatu ci e, turu ñeneen ñi waxalal sa bopp e, politique buñ boo koy def danga koy def ak yar def ko ak dal def ko ak courage fit Euh, def ko ak élégance waaye waru ànd ak arrogance mu ne ko église nag ragalul li nga xam ne moo di voile ndax dafa bokk ci patrimoine am man dama bokk ci deux milliards yi nga xam ne ne Jésus Christ bi nga xamante ne moom la ñu daajoon loxoom yi ci croix ba moom la ñuy topp man topp ma Christ bi nga xamante ne ne balaa ñu koy daaj ci croix bi lañ ko changé ak keneen yéen ngi dégg mu ne ko euh, Jésus Christ boobu du sama bos man topp ma koo xamante ne ne dawkat la tapet la dafay daw souffrance ak dee. mu ne ko tamit dangaa wax ne yow panafricaniste nga te panafricaniste du waxee yow ni ngay waxee euh, du defee yow ni ngay defee euh, dangaa war a génne ci li nga nekk ci gatsa gatsa bi euh, reetaanal détendral sa bopp libéral sa bopp voilà dundal wala sax soo ko mënul kon nga xam ne ne guerre bi géex na ndax guerre bi fi des mooy guerre euh, contre dund bu cher bi chômage bi ndóol bi ak ñoom seen mu ne ko euh, nañu bàyyi di foog ne ne mën nañu nax yàlla ndaxte euh, yow mii dañ laa fal pour que nga xeex li nga xam ne moo di li ma wax nii yépp dund bu cher bi ndóol bi chomage bi jàppale jeunes yi mais waxuñu la ne yow dangaa war a xeexal yàlla kenn falu pour loolu Euh, yàlla mooy yàlla soxlawul général soxlawul état major mu ne ko tamit te yàlla bëggul ko xamante ne ne moraalam des na maanaam am na yenn làmmiñ ak yenn loxo ak yenn pantalon tubéy yoo xamante ne ñooñu éliminer nañ leen ba pare mënuñoo xeexal yàlla dégg ngeen euh, donc mu ne ko euh, lii nii ma bind na dama ko wax parce que ay dëgg la yu ma la waroon wax te bokk na ci jub jubal jubbanti bi donc changer ni nga xamante ne noonu ngay doxalee guerre bi jeex na parce que lii ngay def nii moo la nara euh, réeral voilà abbé André Latyr Ndiaye lañ ko signé voilà lii laa leen bëggoon tekkil li ci des duma ci def commentaire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 dama dama xëy gis ñu ne abbé bii nii nga xam ne moom def poste bi euh, dafa dal ci kaw président Ousmane Sonko man sohna soxna si leeral na yu bari yo xamante ne nii daanaka moom la abbé bi wax muy loo xam ne peut-être am na sax ñu ngi tontu abbé bi te xamuñu exactement lan la abbé bi wax abbé bi nag li ma leen bëgg a xamal mooy abbé waxul ci turu église bi abbé waxul ci turu chrétien yëpp parce que dama gis ñoo xam ne ñu ngi tontu abbé bi mais tamit dañuy mel ne kuy xaw a xaabaabale ñu def ci attention bu baax a baax parce que tamit dañoo dëkk ci réew moo xam ne même bu dee quatre-vingt-dix-neuf pour cent ay musulman lañ mais am na si benn partie boo xam ne ñoom leneen la ñu gëm te ñoo ngi dëkk ak ñoom ci réew mi dëkkin wu rafet woo xam ne euh, dara mësul xew jàmm ak salaam la ñu mas di seq di demalante di dikkalante bu ñu amee tabaski tibbal leen. ñu amee ñoom seen i feet dañuy tibbal ay ngalax yooyu yëpp muy dialogue islaamu chrétien boo xam ne lu fi yàgg la ñoom it ñuy doon ay nit ñoo xam ne ay nit yu ñu seetlu la ñu am ay discipline am yar am ay teggin daanaka loolu ñëpp a leen ko nawee loolu nag dama bëgg ngeen bàyyi xel benn affaire Abel li mu def nii na ngeen xam ne France moo nekk ci ginnaaw loolu def leen ci attention bu baax a baax a baax ndaxte France fépp fu ay ay intérêt menacé wu yoon bu mu mën a jaar pour déstabiliser dëkk boobu dina ko def dina ko jaar ci côté beneen wàll bi may bañ tudd dina ko jaar ci côté diine dina ko jaar ci bépp côté bu mu ko mën a jaar ngir jaxase ngir tasaare réew mi te xam ngeen ne France jamono yi ñu toll xelam dalatul ci Sénégal ndax xam na ne nam doon continuer di ko nootee askanu Sénégal di def lu ko saf loolu mënatul wéy ndaxte am nañ jiit yoo xam ne am nañ fulla am nañ fayda te taxaw nañ pour lépp luy intérêt Sénégal ñu défendre ko ginnaaw ñoom xam nañ loolu lenn la ñu man mooy jéem a ruubee fan yële passé gis ngeen ñu jël fi benn euh, benn benn colonel xawma ñu dem euh, ne dañ koy takkal ay grade koo xam ne Sénégal la doon servir ñoom ñu jël ko ne dañ ko yeeyaay jox ay grade xawma nañ ko dañ koo sargal xawma koo xam ne yow du sa soldat so du nekkul sa soldat solga soldaaru Sénégal la Sénégal lay doon représenté moom la doon servir ci li ñu wax kooku kay Sénégal moo ko war a euh, xanaa takkal ay raaya mais France dem ne da koy takkal ay raaya ngeen gis benn genre provocation boo xam ne moo njëkk ci loolu ñëwaat nañ tey abbé bi li muy def nii du yëfam parce que nag wax dëgg yàlla bu fekkee premier ministre waxut ak yow premier ministre tuddul ay ay ay di diine jàmbur di ci wax moom France la dafa sax cité daf ne boo demee France ci seen école yi dañ fay tere lii ak lii ak lii ñu respecté leen ko li mu wax yaakaar naa ne yéen ñëpp dégg ngeen ko ñun tamit dañoo am suñu ay valeur suñu école yi duñu nangu kenn ku war a takk sa fulaar nga ñëw ñu ne la doo fi dugg te nga nekk ci biir réew mi ci réew mi ci réew mi nga am yëg yagu mur sa bopp nga dem ci école bu nekk ci biir dëkk bi ñu ne la doo fa dugg la premier ministre wax ana lan moo ci uti ba nga génn di ko tontu ba naan ko ay xawma buñ ne laa yow yow petit naan ko petit petit politicien xawma ay nga yar say ban kàddu mo fi yaree di ban kàddu moo yaree di ko ci li premier ministre bi wax lan yow waxut ak yow waxul tuddul benn diine jàmbur tuddul waaso jàmbur moom France ci boppam la lay adressé ay paroles saa saa yu wax yu mel nii France lay adressé ay problème lan moo tax ay doomu Sénégal yu ñuul ku nekk ci biir réew mi bu ñu tuddee France ñoom ñooy tontu fan yee passé gis naa ci caaroy 44 bi bi président ba euh, président premier ministre Ousmane Sonko. defe poste di wax ak waa France benn doomu Sénégal xawma Sénégal xawma nag sénégalais la xawma lu mu doon bu ñàkk jom rek tele génn di ko tontu yow koo xam France lay waxal yow nga sénégalais bi yow ngay tontu ngay tontul France loolu si ñàkk jom la bokk loolu ci ñàkk jom dëgg la bokk tey ji mu waxaat ak France beneen doomu Sénégal génnaat di tontul France loolu ci ñàkk jom la bokk ak ku ko mën a def da ngaa ñàkk jom voilà lima may wax nëbbuma ko ku def ku ku ñu ku ñu ku ñu saa yu France doomu sénégalais taxaw di défendre France doomu sénégalais boobu ku ñàkk jom la ak ku mënti doon te loolu la ñu gis nag ñaari yoon bii yoon bi kee def bi yoon ki moo defat li ngeen si jublu lan la bu dee France da leen a ngéem ngir ngeen ñëw di ruube bu ngeen xam ne doo leen ci dal France dañoo am seen fulla ba défendre lépp lu seeni intérêt ba mën a noot ay askanu jàmbur te ñooña ñuy noot amuñu fu la ñun nag dañoo taxaw temm ci loolu mu jeex tàkk suñu diggante ak France dañ ñuy respecté wala ku nekk dem sa yoon kenn ku nekk li nga siq ak sa moroom da nga koy respecté ba mu mat ñun ci loolu lañu nekk France mënu France mënulul askanu Sénégal dara lu dul di jaar ci suuf di jënd ñii pour ñuy ruuba fii di def nii di def nii France bi xeex yow di jàkkaarloo yow directement xeex day créer ay affaire ci suuf te lii yëpp damaa gëm ne ci lu mbirum France la ba léegi. parce que tamit bu jëlee koo xam ne peut-être dafa bokk ci benn diine te affaire diine muy lu sensible fii ci Sénégal tey bu taxawee wax ay nit jug di ko tontu buñ ko tontee buñ ko tontuwul en tant que moom mi wax rek mën nañoo indi ay ay ay ay jafe-jafe ci réew mi ndaxte bu fekkee am na ñoo xam ne maa ngi koy gis dañ koy tontu mais dañ koy tontu ba tontuwaale di diineem wala affaire yooyu noonu te loolu amaana mën nañ ko éviter mën nañ ko tontu moom mii wax parce que moom moo wax nañ bàyyi xel loolu. am na ñu mbokkal diine ñoo xam ne ànd ànduñu ci li mu wax nii kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu tontu ko moom te xam ne moom moo wax ndax lii yëpp ay pexe France la su tiitee nii lay def day jéem a ruube xool nu muy jaxasee réew ma xool nu muy perturber réew mi bu ñuy xëccee jëmale seen côté diine mais ñuy xëccaat jëmale seen côté diine jafe-jafe yi commencé problème yi commencé réew mi commencé am ay jàppal bàyyi loolu lañ ci jublu mais ñun ñun loolu waruñu leen ko may bu soobee yàlla duñu leen ko may. fii ngeen ñu fekk te fii ngeen ñuy bàyyi di ngeen a taxaw temm ci defar seenum réew ba mu rafet ba ku fa ñëw bëgg faa ñëwaat ñu nit loolu ngeen bëgg lu ko raw la ñu bëgg am nañ pétrole am nañ gaz am nañ zircon am nañ lépp luy tax suñu réew baax yëkkati nañ ko teg ko ci ay loxo yu wóor dañ leen di accompagner di leen protéger ku leen tudd wax si ñoom loo wërta wax ak koo mën a doon daraja boo mënti am ak koo mënti doon dañ lay tontu. boo bañee ku wax si yow nag bul wax si ñoom wala booy wax si ñoom nga wax si ñoom dëgg même bu la ngay wax du lu sax na doon dëgg au moins ñu xam ne li nga wax nii kat critiqué nga leen mais da nga ko teg si dëgg mais di ñëw di di asaar ne wu ci kaw ni naan ay yaru ay booy wax da ngay yaru ay nangam nangam yow kay yaa yaruwul premier ministre lan la fi wax lan la wax ci wax boo xam ne dafa yaree di ko ak kan lay waxal ñi waxal yow yoroo der bu ñuul yow bokkoo foofu loo ciy tonto